daa eh, bul fay. am na wifi bi na wifi. benn benn genre mu dem yaa ma gën a soow yow. yaa ma am na sa benn fans bu lay seetaan Mado mi ngi nekk fii ci ginnaaw. Ah, maa ngi bañ a turu entreprise bi muy liggéey. ah d'accord Mado voilà. Mado la tudd wa. Mado la tudd comme ah, yow. <laughs> comme Tata Bousso Tata Bousso qui adore Fatim oh, chaque jour mu ne ma sama doom nga waaye nag Fatim moom oh ah. léegi et tous les matins c'est un message qui vient euh, quand elle fait la météo. elle dit Tata Bousso moom Fatim moom dama ko bëgg torop donc Tata Bousso <laughs> Fatim daf lay nuyu en direct. man Tata Bousso. ñaar waykat. non non non est-ce que mën na ma bàyyi. amoon nañu waa classe bu ñu tuddee woon mot contraire.

bul mer ah. sa doom ji wérul ñetti dërëm la bu dërëm bi <laughs> dërëm bi réer <laughs> loolu rek ko ko daal waaw ñetti dërëm la boo xam ni. dërëm bi réer Daamuso maa koy daaneel Daamuso. je te secoue c'est moi qui te secoue. et puis xam naa tout à l'heure on aura euh, séquence anniversaire bi mais Fanta Mbodj euh, elle c'est ma vie ah euh, tey c'est son anniversaire. ah alors aussi bijou. Ah. bisous Fanta ñu woyal ko joyeux Fanta Mbodj ñu woyal ko ah. joyeux anniversaire. joyeux anniversaire. joyeux anniversaire Fanta Mbodj. joyeux anniversaire. Euh, yaayam mooy proposé caabi bi ci pot quoi. Ah, parce bu ñu baalee bu day jël caabi bi def ko ci pot bi Fanta caabi gaa ngi. <laughs> j'imagine. Allez, je t'embrasse très fort, c'est une petite sœur que j'adore. Elle fait partie de mes meilleures amies ah. donc Fanta bon anniversaire comme on di kuy xalam di ca jaayu. voilà kon comme sagam dama koy defal ñeneen ñi bu sama xarit xewlee faaw rek ma wax lu baax. comme ni ma ko ko tàmmalee woon comme li may faral di wax su neexee ba neex ma way. Euh, euh, Fatim wala euh, Yeya waaye Bourise Beuris ma way Fanta bon anniversaire à toi Aïcha ñu ngi leen di xaar ba léegi 88 628 65 65 wala 88 628 22 22 wala 88 628 405 on enchaîne tout de suite ak seen rubrique trucs et astuces la seule rubrique qui va vous permettre ngeen am ay trucs ak ay astuces yoo xamante ni di ngeen mën a <laughs> bien-être et ensuite ce qui est intéressant euh, euh, euh, ci rubrique yi di ngeen koy mën di gis ensuite ci chaîne TFM YouTube wala sax ci site internet bu future Média di www.gfm.sn alors aujourd'hui promesse bi moo nekkoon suñu mag yi suñu yaay yi nga xamante ni ni dañuy bëgg a euh, maintenir seen jeunesse ñu am ay astuces yoo xamante ni dinañu mën a euh, bañ a defati bos botox n'est-ce pas c'est ça ah donc c'est parti pour truc ak voilà dama ko jëloo dépourvu ah. <laughs> merci euh, pour le café chaud. tey la euh, euh, Mado. promesse bi moo nekkoon waaw on va faire benn masque boo mhm. xamante ne bon déjà prends avec Alfie le truc. voilà donc dañuy def benn masque boo xamante ne c'est un masque boo xamante ne c'est purifiant. c'est nourrissant ba pare c'est vraiment adapté aux peaux sèches. au tax ñu naan peau sèche xam nga parfois les seen peau dafay manquer hydratation dafa tàmm tout le temps day dëgër et tout. Mhm. ils ont tendance à avoir une peau sèche. de ce mhm. fait comme ni au lieu ngeen di def botox da ngeen li ngeen di xamante li ngeen xamante ne moom moo di banane. <laughs> alors la banane c' est la meilleure chose te il faut savoir que banane bii nii. Mm-hmm. non seulement dafay lutter lépp loo xamante ne moom mooy. Euh, euh, rides yi nga xamante ne dafa am ci kanam boo koy faral di ko def tout le temps tu n'auras pas tu plus de rides. Mm-hmm. bu fekkee aussi da nga am euh, dafay embellir li nga xamante ne déjà moom moo di sa peau ba pare ça les peaux acnéiques. peau yi nga ah, xamante day am acné exactement tu vois tu machallah mais tu as des petits boutons des petites taches noires eh, essaie demande à ta dame je te dis <laughs> banane <laughs> voilà boo ko utiliser banane <laughs> en cinq jours wala quelque temps je te promets que Pape tu n'auras plus plus plus de taches noires donc tout le ah. temps femmes yi dañuy lakkal ko wax alors y a pas meilleure solution day leen di faral def li nga xamante ne nag moom ay masque de banana mais li nga xamante ne sonal na ma et tenez-vous bien banane bi baax na mais aussi la peau de la banane c'est encore meilleur ah <laughs> donc banana ak xollitu banana yëpp baax na ci dara banaana comme par exemple bu fekkee dañu nekk ci nawet bi ñu jëm mhm. on a tout temps ay insectes yu bare yoo xamante daf ñuy màtt daf ñuy sonal mhm. alors utiliser li nga xamante ne moom moo di boobu bu fekkee benn insecte màtt na la mhm. nga jël powu banaan bi nga frotter ko ci tu verras que xasan bu mu doon def wala métit bu mu doon def doo ko yëgati ah. donc c'est même c'est quelque chose mooy tu brûles pas xolitu banana non ak xolitu banana doo brûler c'est les verrues voilà donc même verrue pendant cinq jours nga jël à chaque instant di jël xolitu xal banana boobu di ko fanaanoo tu verras nga ko def ci fi verrue bi am tu vas voir voilà exactement donc pour nga def nag benn masque pour euh, peau euh, sèche les personnes âgées donc c'est très simple da ngay jël benn banane ah Pape Cheikh tu l'écrases bien pourquoi je dois écraser la banane bah, je d'ailleurs ah, vas-y couteau donne-moi le couteau. moom kontaan na buy patel rek day kontaan. mais banana. mais tu écrases bien. Alphie. on coupe le citron. et voilà on coupe le citron Pape Cheikh toi tu écrases bien ba nga xamante ne c'est comme si tu te faisais une mayo. Fatim, tu as vu comment j'écrase la ah, banane ah, J'adore comment tu <laughs> écrases la banane. Donc tu as vu, elle est bien écrasée. Euh, oui, mais sa banane bi dafa xaw a tooy sax c'est quoi Voilà, au fait gis nga c'est ça c'est bien, c'est la question que j'attendais ñu poser. Ouais, j'ai posé une bonne boy, question. Booy utiliser Regardez, banane madame bi dafa tooy xep. <laughs> c'est vrai banana masque mado bee tooy ok banana masque mado bi dafa tooy <laughs> parce que d'habitude moi. bu ma gisee ñu pàcc ñu pàccal am na benn astuce boo uh-huh. fi indi woon. Uh-huh. bis bi ñu pàccalee woon banane bi. Euh, tooyul woon xet. voilà oh, parce que <laughs> regarde tu vois c'est cet effet que ça te donne. Ah. donc eh, donc war a def ba mu mel ni mayo gis nga effet bi ngay jox nii. nan ce que tu fais boo ko écrasé banaan bi nag banaan bu eh, xam la xam nga lu ñu waroon accompagner. Ah. Euh, euh, li ngay def ci banaan bi ah. El ah. Hadj am na benn way bu mu woyoon peut fekk na leen ko xel ma banana ma banana. donc tu sais Pape Cheikh banane boobu donc booy def masque bi da ngay jël benn banane boo xamante ne c'est une banane qui est mûre. donc boo ko mélangé ba ah, mu jaxase voilà banane bu ñor xomb. si lëf bu dem ba nooy complètement moom ngay utiliser léegi ce qu'il faut faire. bu doon mango la ñu ne mango fuusa. voilà mango fuusa yow da nga yàgg de. alors ah, rajoute tu euh, de citron. doo boo nee goutte sax bu ndaw citron. Ah. lu tax may utiliser citron bi. lu tax li kat li tax ma koy utiliser. <laughs> moom mooy permettre mu dindi les acné mooy taches noires yi ngeen di am. Ah, comme kuddu café nga def. voilà kuddu café citron nga mélanger ko toujours. après nga yëngal. voilà et mado bi dinaa voilà après nga jël nag benn kuddu. miel don don ta cuillère Pape Cheikh. <laughs> nga jël benn kuddu. on on le met là comme ça yëngal am na ñu bu saf loo yëngal. sa yëngal am na ñu sax di bàyyi seex. man na yëngalu alfay yëngal man. <laughs> on prend une petite cuillère aussi kudd bu ndaw boo xamante ne lem lay doon. ah kudd voilà donc comme ni ma ko waxee limon bi moom mooy dindi tous les tout acné yi ngay am mooy bouton yu woow yi. Ah. et euh, miel bi nag c' est ce hydrate la peau. donc boo leen di ko faral boo ko mélangé ba nga xamante ne vraiment c' est homogène. tu l' appliques sur ton visage jëm ba ci buste bi parce que la dernière fois. Ah notre invité nous l' avait dit booy pratiquer da ngay dem ba ci buste bi donc boo ko ci mélangé da ko koy appliquer ci sa kanam nga bàyyi ko pendant cinq minutes mu reposer wu boo ko bàyyee ba nga xamante ne voilà da koy bu baax ah. voilà da nga koy def ba mu à la limite ça te fera l'effet de maillot comme photo bi maa wone woon voilà ça te fait vraiment benn effet maillot nga jël ko nag avec à l'aide d'un pinceau bien sûr nga appliquer ko ci sa kanam mais bul yem ci kanam bi rek na nga wàcc ci cou bi jël ba ci buste bi parce que peau bi nekk ci kanam bi mook buste bi c'est le même effet c'est la même chose da ngay traiter aussi en même temps le buste donc boo ko defee pendant cinq minutes bu gisee da gis ni que day dem ba benn couleur chocolat la lay jox comme si c'était du caramel hmm. ba yàgg day mel ni lu marron boo demee ba nga am effet boobu na nga jël ndox bu un gant maanaam ndox bu nugg ko voilà ndox bu nugg mais boo koy jël doo ko raxasee ak sa loxo dangay ngay utiliser benn gant en tissu wala bu fekkee nag am sa benn serviette nga dagg tuuti ci serviette bi nga nettoyer ko avec de l'eau boo koy appliquer pendant euh, ci semaine bi benn yoon nga koy def ci semaine bi maanaam ñeenti yoon ci weer bi la lay dikkee tu vas voir bu fekkee da nga am ay rides dina dindi say rides dina anticiper li nga xamante ne moom moo di rides yi et non seulement dina hydrater yaramu mag ñi surtout les personnes âgées te ñoom du ñu dem amuñu moyen def ay botox comme vous donc lii moom y a pas meilleur dina nourrir seen peau donc lii nag tey dañ ko jagleel yaay yi comme on est sorti hier de la fête des mamans. Mhm. donc ñoom ñoom moom li Pape ah c' est c' est, c' est pratique ah. disponible euh, ci ci ci ci site bi pour gars yi ko bëgg a bëgg bëgg a reprendre seen ay biir kër quoi. rappel euh, li ñuy defar banaan la ñuy pàccal. mais bu ñor xomb voilà da ngay bu ñor xomb. xepp tooy. banaan bu tooy benn banaan bu ñor xomb. banaan bu tooy ak yow. <laughs> ak yow benn banaan bu ñor xomb. nga jël benn moitié citron maanaam benn kudd bu ndaw bu limon. nga jël benn kudd bu ndaw bu di miel nga mélange ko ba mu baax nga appliqué ko ci sa kanam pendant 5 minutes nga nettoyé ko ak ndox bu cedd ba pare utiliser li nga xamante ne moo di gant pour mu dindi ko ba mu set wicc et su boobaa boo koy def benn yoon ci semaine bi maanaam ñeenti yoon ci weer bi di nga ci gis avancement te doo gaaw a màgget. c'est bien dix li nga xamante ne nga def voilà tu as fait des efforts merci petit <laughs> voilà merci na. merci petit merci petit merci Mado comme chaque matin daf ñuy jox ay trucs ak ay astuces yoo xamante ni euh, daf ñuy permettre di assurer euh, suñu euh, bien-être ayca